وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وسلم تسليما ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله عن جميع المؤمنين تبارك الله وكي جلدي جناب بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد جلدي أي نيوم أكي صحابام سن بوكو سن خريس سن صبي شاهمد تجاني ندوه moo dellu si ànd yéen ci seen tafsirul quran ñu ngi woon ak yéen ci suuratul aala ñu ngi tegoon suñu baaraam ci wanu yassiruka lil yusre borom bi subhaanahu wa taala di digal soppeem bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mu sàbbaal turam bu kawe bi mu ne ko sabbix isma rabbika al aala alladi xalaqa fa sawwe والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر borom سبحانه وتعالى wa خمل mu ngi xamal yonent bi sallallahu daañu la jàngal sa nuqri uka daañu la jàngal waaye li lay jàngal fala tanse doo ko fàtteeti mukk illa macha allah lu dul lañu soob nga fàtte ko ca lañu man suuxal ci yenn aaya yi ak yenn atte yi innahu yaalamul jahra wa maa yaxfa xam-xamu zaahir ak baatina fi nekk bi biir ñépp xam ko ak bi nëbbu ñaari xam-xam yooyu yëpp a yem ci yàlla te bu ci nekk dana la ko jàngal moo tax danaa la jox alquran ak leneen lu muy àndal loolu nag lu yonent bi sallallahu moo ko xamal boppam mu di xam-xamu xikma wante nag ànd ak loolu lépp njàng ni mu jafe surtout ko dem ba am ñeent fukki at ak li aju cim njàng ak jafe-jafe yi ca nekk yépp danaa la ko teggil su ko defee indil la ak yomb-yomb ci njàng mi indil la yomb-yomb ci mokkal gi indil la yomb-yomb ci dégg gi kon njàng mi danañu fexe ba mu yomb wanu yassiruka lil yusra mokkal gi danu fexe danañu fexe ba mu yomb wanu dégg gi danu danañu fexe ba mu yomb wanu yassiruka lil yusra lu tax ndax alquran moo di leetru yàlla bi nga xam ne li mu bëgg yépp ci la ko wax tabaarakallaahu pour doomu aadama mi ko wuutu ci kaw suuf doxalee noonu suuf te moo di wéetal ko fi jaamu ko lambo fi jikko yu rafet tabaarakallaahu bañ ko bokkaaleeg dara leetaram boobu nag yow yonent bi daañu fexe ba nga jàng ko dégg ko mokkal ko su ko defee nag nga mën ko jottali nit ñi na mu ware te dara du ca manké kon gannaaw bañ la yombalalee loolu ndax wanu yëssiru ko daañu la yombalal yow yonent bi njàng mi lil yusra nee na ba mu yomb lool aha daañu la ko jàppandil ba mu jàppandi lu tax ndax dañoo bëgg fa dhakkir nga waare ci alquran jooju kon fa dhakkir bil qur'ani indi wuñu alquran ji waaye yaa ngi koy déggee ca geenu suratu qaaf fa dhakkir bil qur'ani man yaxaafu waid mhm. fa man yaxaafu waid man kon fa dhakkir na nga waare bil qur'ani ci alquran ji ma jox yombalal la mokal gi ak dégg geeg njàng mi nang ci waare in nafaati bu fekkee dana jariñ ak dikra ak waare fi itam boroom xam-xam yi dañu wax ne in nafaati zikra in gi inu shartiya la mooy bala nga war nit ki dangay seet ba xam ndax ling koy waar dana ko jëriñoo wala du ko jëriñoo moom mi ngay waar ndax dana jëriñoo li nga koy waar wala du ko jëriñoo tabarakallahu am ñu ne déedéet in gi du une chartiya waaraate bi euh, lamb na ko koy jëriñoo ak ku ko jëriñoowul kon fa dhakkir na nga waare ci alquran in nafaati bu fekkee dana jëriñ ak dikra waare wa in lam tanfa donte itam sax ak waare du jëriñ ki ngay waar yow sa devoir moo di rek nga waare النبي صلى الله عليه وسلم يالا نينكو <clears throat> وما على الرسول الا البلاغ لي وار اب يوننت دال موي نا جوتلي كون نك جوتلي بوبو لين لا سانت ديفكو مودي ميسيون نك بوديس بو كومبليكي ناخ دانيو لا يبال شي سي مبوك تي نيوم سيني خول جوبيلو على عباده الاصنام dañ la yebal ci say mbokk nga ndax wa andir ashiratak al aqrabin aral ñi la gëna jege te sa mbokk yi dañu moñ seen xol ci jaamu xërëm motax bo demé ci suratu yasin borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتح لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أم بينك سولين إندي لي لدبو تكسيني آدا دانيو لا مره نح الإنسان عدو لما جهل دوما دما لب لو خمني ريري نكو رك نياري دفكو يدف نون كونك pénc mi nga jëm di wax ak ñoom mu di péncu màkk ak yeneeni pénc ba àdduna bi daj pénc yooyu yëpp ñaare lii nga leen di indil xamuñu ko woon kon nag dana metti sa digganteeg ñoom ndax pénc moo dugal aada ju ñu xamul la muy njëkk jur balaa ñu laa dégg mooy daañu la bañ daañu wuteeg yow tabaarakallaahu du ñu bëgg a dégg say wax waaw du ñu supporter say jëf te itam daañu noonu ñu àndak ak yow ba sax loola dana leen yóbbu ci ñu jéem la rey jéem a rey ñi àndak ak yow te gis ngeen ni looloo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa ñaari yoon sant na ko saxaaba yi ñu gàddaay dem Éthiopie ba ginnaaw si sax moom ci boppam yàlla ne ko gàddaayal nga dem Médine wante ànd ak loolu lépp moom yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla nee na ko yonent yi fi jiitu woon bëri na luñ ma daan ñaan wante yow moom daanaka dama la sopp sopp goo xamante ni boo ma ñaanul sax ma may la kon dana yombal sa risaala ba lu ci jafe woon mujj yomb ci yow jàppandi ci yow mu ne ko ndax Muusa sa nawle la woon ba ma ko yónnee ci firawna mu war faa yóbbu lu firawna xamul te bëgg ko wala bu ko xamee sax bëgg ko daf ma ñaan ne rabbi sharh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa yassir li amri la ma ñaan man nag balaa nga ma ko ñaan man yàlla danaa la ko may yow yonent bi ndax wanu yassiruka lil yusra la Moussa ñaanoon yow doo ko ñaan te danaa la ko may moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla defal ko jàppandal ci lépp waaw defal jàppandal ci lépp mhm. moo tax moom ci boppam yàlla daf ko bind mafturun ala rahmati wal liin yonte bi yàlla def ko mooñ bind ko ci yërmande akuk nooy akuk jàppandi ku neexoon na àndal la ku rafet jikko la moo tax yàlla ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum waaw fa bima rahmatin min allahi gi ma la moo tax mënuloo dëgër mënuloo jàgg mënuloo soxor ci koy jëflanteel mukk motax ñépp miné won ko ne hayyinun layyinun karimun waaw ku jàppandi won la ku noy la ku teddon la mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom bi subhanahu wa taala moko baxé melokan wowo ndax waxna ko ko ci suratu sharh alam nashrah laka sadrak ben wa wadana anka wizrak ñaar wa آه، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك نار نعم، ورفعنا لك ذكرك نت فإنما على العسر يسرا دينغ دي كون يي موكو ديفال ييب ان شرح الصدر وبيد نم بمو مانا سيبورتي كوني مانا اندا كوني تيغيل كو ليپ لو ديس تي ميسيون بي واو آه، يكتي تورم با نييب سوبكو bëgg ko di ko tuddee doom waaw ah. ba noppi itam lu jafe woon rek mu yombalal ko ko moo tax borom bi xamal ko ne lépp lu jafewoon woon ca yonent njëkk ya yombalal na la ko moo tax moom yonent bi sallallahu alayhi wa amul dara lu jafe ci moom loolu am na ci shawahid ajiba yoo xam ne soo demee ci siiraam danga ko ci jànge ci xare xandaq mu di yowm al ahzab bi ñuy gas xandaq yi ba daj ci benn xeer bu dëgër saxaaba yi ku ne dóor na xeer wa pour mu toj kenn mënu ko xeer wi taxaw rek daa di fatt nag saxaaba yi kenn mënu ko toj mu ñëw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne nawilunil fas ñu jaadi koy naawiluunil fa'sa mooy jox len ma pik bi jox len ma sémmiñ wi ñu jox ko ko mu ne bismillah yekati loxom dóor xeer wi ne tasar toj gis nga kon la jafe woon ci sahaba yi ak seen doole doole yi umar ibn al-khattab dooley salmaanul farisi dooley sidna ali ku ne dóor na xeer wa bañ waaye moom ba mu ñëwee benn yoon la dóor xeer wa toj ndax wanu yassiruka lil yusra bi nga xamante ni médecine amul amul benn hôpital booy taxaw la gënoon a jafe ba léegi médecin def ko cim faj sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf ko ko yombalaloon seede na loolu bëtu xataada ba keroog ba nga xamante ni buqeeku na ba mu taawu ko ci loxoom bi mu ñëwee wax ko yonent bi sallallahu alayhi yonent bi dafa jëlaat bët ba delloo ko te ba mu ko delloo itam gisaatuñu benn cicatrice gisuñu benn góom gisuñu benn nàcc-nàcc wanu yassiruka lil yusra kon am paj yàlla yombalaloon na ko indil nañ ko dof boo xam ne mëj noonun wa mam suus dafa juddwaale dof ba ndof tega tabaarakallaahu waaye ba mu ñëwee tiim ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ne jinne nekk ci moom seytaane nekk ci moom mu ne uxruj aduwallah fa inni rasulullah fa xaraja sarian yonent bi tiim na waa jooju nga xam ne dafa judduwaalee ndof ndax rab ba daf ko toppee ci biiru ndeyam nangu ko bàyyi mu juddu tabaarakallaahu mbir mi topp ko rek ba mbokk yi mujj nag ne buñ ko tawatee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci am solution bi ñu ñëw wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa tiim waa ji rek mel ni yàlla da ko seytaane bi nekk ci moom mu ne seytaane bi uxruj génnal yaa aduwallahi yow noonu yàlla bi ci saa si seytaane ba duggoon ci moom daal di génn waa ji daal di wér ba ni mu génne àdduna gisatuñu benn yoon seytaane wala benn jinne di ko sonal kon wanu yassir ko yàlla moo ko waxoon ne ko daañu la jàppandal ak jàppandi ba nga xamante ni loo bëgg rek daf lay dal di yomb mu mel ni wanu yassiruka lil ñun yàlla daañu la jàppandalal daañu la yombalal ak jàppandi ci lu ne nga xam ne loo bëgg mu yomb ci yew rekk mu yomb moo tax mu delloo bëtu xataada ba mu dellu gën a rafet sax bët ba nga xam ne mooy original ba moo tax itam mu génnee jinne ja seytaane ba ca jëmm jooju ñu ko indiloon wanu yassiruka lil yusre jamonoy bekkoor moom yonent bi sallallahu alayhi am na benn kaw kaw bu ñëwoon fekk ko ci jàkk ji benn ajjuma mu ñëw ne ko yaa rasulallahi halaka annaas yow yonent yàlla bi nit ñi day ñu ngi bëgg a dee alku jur gi alku na bi ne ko lu tax mu ne ko bekkoor bee tax kenn lekkatul jur gaa ngi dee ñaanal sa boroom waay mu xettali ñu yonent bi sallallahu alayhi wa tàllal loxoom ci saa si ne allahumma axisna allahumma axisna allahumma yàlla yàlla nga ñu xettali may ñu taw ci saa si ñu gis niir yi ak xiin yi di dajaloo nit ñi di ci teg seen bët ba asamaan si ñuul kukk gannaaw ba mu nekkee njolloor gu leeroon nañ tabaarakallaahu mu mujj lëndëm këriis ndax xiin wu ñul kukk mu commencé taw te nit ñi génn ñu jàkka ji ba bi ñu jullee ba noppi delluwaat ci taw la wa nuyassiruka lil yusra yàlla moo ko jox garanti ci ne lu mu bëgg mu yomb ci moom rek mu yomb ba àjjuma ja dellusee muy bis bu aay di une semaine boo xam ne tawam boobu mu ñaanoon mu ngi taw rek kaw-kaw ba dellusiwaat fekk yonent bi sallallahu alayhi ci jàkk ji nam ko fa fekkee woon ne ko yaa rasulallah yonent bi ne ko labbayka mu ne ko halaka annaasu min ajlil matar nit ñi kat alku nanu ngir taw bi nga xam ne moom nga ñaanoon sa boroom kon nag yaa ñaanoon taw bi waaye taw bi nag defar na waaye daa mel ni léegi ci yàq la jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di tàllal loxoom yàlla daa di koy ñaan ne ko na taw bi nag sotti ci li ñu wër na taw bi sotti ca montagne ya ak xur ya tabaarakallaahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne allahumma xawaalayna laa calayna allahumma ala butuni al awdiyati wal akaam yàlla ñu ngi lay ñaan taw bi sotti ci di ñu wër suñ boroom ñu ngi lay ñaan na taw bi sotti ca xur ak montagne yële fa mu joxoñ baaraam ba ñu gis mu mel ni taw ba dafa teggi a wara jëm ca wàll googu di fa sotti kon wanu yassiruka lil yusra borom bi subhanahu wa taala moo ko defal ak jàppandi ci lépp alam la ko sadrak wa wadaana anka wisraka alladi anqada dahrak wa rafana laka dikrak fa inna maa al usri yusra ba ci ku ko mësaana ëkku tëkku ko bañ ko noonu ko ñaari soo toogeek moom rek danga koy mujj sopp gëm ko seydna umar ibnul xataab ci ñi gënoon a bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu jiitu muy dugg ci lislaam ci la bokkoon ba mu déggee ne jigéenam dugg na ci lislaam mu ne nag kon yonent bi dugg na biir këram ba sax léegi jël na ab jarbaatam eh, jël na jigéenam kom dugal ko ci eh, diineem ji kon bala xolama sedd mooy mu rey yonent bi sallallahu alayhi eh, keroog ba mu giseek yonent bi bët bët tal na leneen lu dul rey yonent bi sallallahu alayhi ndax yonent bi moo ko mujj poñe boole ñaari baati mbubbam yi téye ba Omar xam ne boroom doole ko téye Seydina Omar nee na doole ji ma yëg ci yonent bi mosuma ko yëg ci benn jëmm ju ma mës jëflanteel ndax yonent bi sallallahu alayhi wa doole ñeen fukki punkal la yor maanaam boo boole woon ñaar fukki dégg nga maanaam boo boole woon boo jëloon Omar ibn al def ko ñeen fukki Omar wala nga jël Seydina Hamza def ko ñeen fukki Hamza ñooy tollook doole yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne Omar xanaa jotul nag nga nangul lislaam bi ma yàlla yónni Seydina Omar ni group ci suuf daa di sukk daa wax ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon wanu yassiruka lil yusra lu mu masaan a bëgg bu ko ñaanee yàlla yàlla may ko ko fekk booba itam moo ñaanoon ne yàlla ñaari jàmbaar yi ci màkk rek bu ma sañoon nga tànn ki la ki la ci gënal nga dugal ko ci lislaam booba amr ibnu hisham la mu di abu jahlin ak omar ibnu alxataab mu ne ko ñaari omar yi daal soppoon naa kenn ci ñoom ñaar dugg ci diine waaye tànnal yow ka la gënal suñ borom subhanahu wa taala sidna omar moo ko gënal moom la tànn waaye sidna omar lim doon bañ bañ yonent bi mujj na mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca dëgg-dëgg innaka la ahabbu ilayya min nafsi yaa ma gënal sama bopp yaa ma gënal sama ndey yaa ma gënal sama baay yaa ma gënal sama njaboot kon sang bangoog lépp ma yomb ba ci sharia bi ko yàlla jox yàlla da ko yombal yàlla dafa yombal xeetam daf ko yombalal lépp lu tax shari'am bi yomb su dee ci wàllu koor ci shari'am dañ lay wax ne la soo dee tukki lu tollook quatre-vingts kilomètres maanaam juróom-ñett fukk kilomètres bu la neexee nga dog sa koor soo feebaree mën nga dog sa koor loolu ak jàppandal la ak yombal la ci diineem bu dee ci julli ñu ne la boo dee tukki tukki boo xam ne mat na juróom-ñett fukki kilomètre ba tey julli gu doon ñeenti rakka mën nga ko def ñaari rakka bu la neexee itam nga boole ci tukki tisbaar ak tàkkusaan wala timis ak gee loolu diineem la ko yàlla tabaarakallaahu may tabaarakallaahu ba ki nga xamante ni sax dafa yore toj mu mag waroon a sangu farata te amul ndox wala mu waroon a jàpp te amul ndox mu indil ko ak yomb-yombal ci tiim ne ko jëfandikoo suuf ah, ndox mën naa ñàkk waaye suuf moom mu ngi fi ci biir suuf sax boo amul pàkk ñu ne la wutal xeer moo tax ñu bari nga gis leen ñuy wut wut ay xeeru tiim muy xeeru géej yooyu di ko tiime ci wàllu julli léeg nga dem ba feebar du la may nga mën a toog tabaarakallaahu frenkulaayu ñu ne la toogal ci chaise léeg sax ñu ne la jullil ci oto jullil ci bato tabaarakallaahu jullil sax ci fas wi nga war loolu tabaarakallaahu yàlla moo ko ko defal yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla nee na ko diine ji mën la jox yow muhammad lu jàppandi rek laa ci namm nammuma ci lu lay sonal wala luy sonal sa njaboot luy sonal sa xeet moo tax julli mbooloo li muy am am solo taw taxoon na mu ne sallu fi rihaalikum julli leen ci seen waruwaay te ku julli ci sa waruwaay itam ci waxtu woowu danga am ngëneelu ku julli ci mbooloo moo tax alxaraju marfuun lépp loo xamante ni rek diis diis laa ci tege-tege tabaarakallaahu yoo xam ne coonoo cay nekk yàlla teggil na ko xeetu seydina muhammad ndax wanu yassiruka lil yusra ñun daañu la jàppandalal ak jàppandi ci lépp nag moo tax fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaanan dem na ba nga xamante ni nit ki sax mën nay julli di dox wala muy julli di daw dem na ba nit ki sax ñu ne ko mën nga war ba pare julli ca kaw la nga war fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaanan moo tax su ngant amee tabaarakallaahu te ngant yi ci ëpp moo di feebar tabaarakallaahu eh, nga gis lu mel ni feebaru corona bi am ñu ne diine lislaam di diineeg jàppandal la ndax wanu yassiruka lil yusra yàlla may yonent bi sallallahu alayhi wa diine ji benn tege-tege luy sonal nit ñi wala lu leen di gaañ nekk ci ndax yuridu llahu yuridu dafa namm allahu yàlla bikum ci yéen xeetu muhammad al yusra ak jàppandi ak yomb wala yuridu te nammul moom yàlla bikum ci yéen al usra lu leen di indi jafe-jafe ki tiis ba ngeen cay dee walla ngeen cay sonne kon su fekkente ne sharia may nañu bu mbas amee te mbas mi di wàlle tabaarakallaahu ñu teggil ñu julli ci jàkk tabaarakallaahu ah bu ñu dee xëccu ne dañuy dem di julli ci jàkka ji xaru la ci ñun xaru ak ñàkk dégg diine waaw xaru ak ñàkk dégg diine ndax ku ne xam ne ni diine yi ñu jiitu muy diine nasaraan ak diine juif ku ci julliwul ci sa jàkka ñoom amuloo julli nasaraan bi mënta julle ci këram juif bi mënta jullee ci këram ci jàkka rek lay julle ci jàkkaam rek la mën a julli muy églis ba wala diir ba jullit rek la xeetu seydina muhammad rek la yàlla may suuf sépp di jàkk ci moom kon wanu yassiruka lil yusra waaw wanu yassiruka lil yusra ba tax na kon dégg diine am na ci solo ba ci wàllu sëy danga ciy dégg wanu yassiruka lil yusra ci wàllu sëy ki nga xamante ni dafa bëgg takk soxna ci shari'a sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yorul dara lislaam mën na ko may jabar sax ci aaya alquran yu mu mokkal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na koo xam ne may na ko soxna ca la mu mokkal ca alquran mu ne ko faqad zawajtuka bima maaka min alquran dem na ba shari'a may la sax alifun baun taun thaun wala abajada hawaza xaraf ya nga ca mën tabaarakallaahu eh, mën nga ko mën nañ la caa may soxna mën nañ la caa may soxna kon al ibadat muyassara wal muamalat muyassara ci sharia sayidna muhammad lépp lu jëm ci ibadat yi danga ci gis ak yomb-yomb gis ci tabarakallahu eh, maanaam ak jàppandi ci ibaadaat yi gis ko itam ci muamalaat yi mhm. kon ci wàllu sëy ci wàllu commerce ci wàllu gépp da ngay gis yomb-yomb ga ci wàllu julli koor aj da ngay gis yomb-yomb woogu ba ci àjjana ji nga xamante ni tabarakallahu nga xam ne ñu bari moo tax ñuy rey seen bopp tabarakallahu di jàmm yàlla pour am àjjana àjjana sax yàlla daf ñu ko yombalal ndax ku ne xam na ne fii ci àdduna euh, sa salaire may la kër sax dana jafe te dangay liggéey bay bëgg a bis bu ne nga xëy di tuñ tuñu guddeeg bëccëg waaye pour nga am kër ga la gënal sax dana jafe léeg-léeg sax nga am kër daf lay daal di jafe waaye borom bi subhaanahu wa taala lu tax lu tol ni aljanna tabaarakallaahu mu jox ñu ko ndax loolu lu ñu liggéey la yàlla ne déedéet du lu ngeen du lu du lu ngeen liggéey ndax àjjana mënu leen ko liggéey dama leen ko yombalal waaw dama leen ko yombalal may leen ko mu di seen kado ngir tabaarakallaahu sama mbaax ak cofeel gi ma am ci sama soppe boobu di sayidna muhammad moo tax borom bi subhaanahu wa taala dañu ko wax ci suratu naba ne inna lil muttaqina mafada wa axnaaba وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا متع الجنة كدولا ميلا أجابندلا غوخمنتني بورم سبحانه وتعالى موكو دفل تبارك الله خيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون موم لبم لبم يلا دفتي دف أك يوم بو يوم بو sallallahu mu mel ni aljanna borom bi subhaanahu wa yombalal na ko yonent bi yombalal ko xeetam ne ko ajjanaa ngi noonu def naa ko jadaan min rabbika ataan xisaaba mënu leen ko liggéeyal tabaarakallahu waaye nag su ngeen defee effort tuuti rek mu lew leen ma may leen ko tabaarakallaahu moo tax yonent bi daan wax ne amul kenn ci yéen koo xam ne jëfam moo tax mu dugg aljanna ñu ni ko ba ci yow mu ne ba ci man mu ne ku dugg aljanna ci yërmandeem ak mbaaxam nga duggee aljanna noonu itam safara mucc ci ku ci mucc rek ci xeetu seydina muhammad ci yërmandeem ndax moo ñu jàppandal nu ñu muccee ci safara waaw bàkkaar yi ni mu bare waaye yonent bi sallallahu alayhi wax na ne waaw bu leen xeeb sarax nee na ndax benn xaru tàndarma benn doomu tàndarma boo waroon a lekk nga divise ko ñaari parti jël genn wàll ga nga saraxe ko nee na loolu mën na laa dugal mën na laa musal ci safara ittaqu naara walaw bi shiqi tamra gis nga saraxa nga ñaan benn kàddu boo wax rek mën na tax nga mucc ci safara nga julli ba noppi rek ne allahumma ajirni min an naar allahumma ajirni min an naar allahumma ajirni min an naar waaw nga julli suba wax ko julli tisbaar wax ko julli timis wax ko julli gee wax ko diggante boobu boo ci génnee àdduna àjjana directement ba ayatul kursi yu boo jàng gannaaw julli gu ne dugal na la aljanna musal na la ci safara yomb yomb googu xetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam la ko yàlla defal motax ñom ñoy ëpp aljanna ñoy fay ëpp waaw ajana moom daanaka ko dajal rek muhammad la waaw amna ay musawiyun tabarakallah waye bo deme amna fa واكر سيدنا موسى واكر سيدنا عيسى واكر سيدنا ابراهيم واين تدال اجنا دال واكر سيدنا محمد نيو فوب داخ لوتاخ وانو يسروك لين يسرا ب ني بروم بي سبحانه وتعالى دي خفاي خيتو سيدنا محمد سيني سالير سيني سالير صح بروم بي سبحانه وتعالى دا فا ملني تبارك الله daf ci xaw a def tuuti ségrégation waxuma sax tuuti waaye daf ci def ségrégation ba mujj sax mu mel ni daf ci ëppal ndax borom mi daf ne man jaa bil xasanati fa lahu ashru amthaliha yéen xeetu Seydina Muhammad ku def benn bu baax danaa ko danaa leen ko fay fukk waaw boo saraxee dërëm yàlla def ko fukki junni waaw nga def ko fukki dërëm nga saraxi junni mu def ko fukki junni nga saraxee million mu def ko fukki million ba jikki yàlla ne xeeb naa ko léegi danaa ko multiplier def ko miatu daaf waaw léegi boo joxee dërëm ma jox la téeméer waaw boo benn million ma def ko téeméeri million joxe benn million mu def ko téeméeri million ba jikki mu ne sax léegi gën naa yokk ful bi léegi boo joxee benn million danaa ko def juróom-ñaar million juróom-ñaar téeméeri million waaw ila sabi miati diaf ba jikki sax mu ne ah xeeb naa loolu sax ila adaafin kathira danaa ko gën a multiplier gën ko ful ba nga xamante ni sax yow un million bi ngay joxe dootoo xamati li ma la ciy fay ndax mën naa dem ba def ko ay milliards yi milliards loolu ku ko am yonent bi sallallahu alayhi moo ko am ak xeetam ngir cofeel ak ngëneel gu yàlla def ci moom wa kaana fadlullahi alayka azima moo tax bu ma gisee kuy tuutal yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne xamul li mu am sharia bi ngay wax mooy yonent bi diine ji ngay wax mooy yonent bi sallallahu alayhi ndax bu yonent bi amul woon diine ji dana am déedéet yonenti bi moy sharia bi moy dine ji yonenti bi moy aljanna ji nga am tabarakallah wa nuyassiruka lil yusra motax borom bi ne ko kon alquran ji ma la jox nak nga xamne ya koy déggal nit ñi ñu dégg ko yaay fexe bañu xam ko ndax xam gi moy tax ñu sopp ko mën ko jëriñoo alquran joju nak fa dhakkir nang ci waar nit ñi in nafaati bu fekke dana jëriñ dégg nga ak waare ga ndax dana len jëriñ wara jëriñu len bu mu ci mënti doon rek waareel ñu ne hadihi al aya ashkalat ala ba'd al ulama aya bi nak amna borom xam-xam yu ko déggul amna borom xam-xam yu ko déggul ba jàpp ne ki nga war waar mooy ki nga xam ne boo ko waaree mu dégg jariñu waaye képp koo xam ne soo ko waaree du dégg du jariñu jarul waar li tax dégguñu mooy ndax yow mi waaraate boo tiimee fukki nit di leen waar ndax mën ngaa xam ña la cay dégg ak ña la ca dul dégg ndax mën nga xam ña cay jube ak ña ca dul jube mënoo ko xam loolu xam-xamu yàlla la waaw loolu xam-xamu yàlla la du xam-xamu doomu aadama moo tax ñu ne nafu dikra aw adamu nafi dikra hada amrun laa yaclamuha illa allah kon wa ma ala rasuli illa al balaax rek ngay déggee ci aaya bi mooy waareel moo xam waare gi dana am ñu mu jariñ wala sax du jariñ kenn waareel yaa ngi koy déggee ci bi suñ borom subhanahu wa taala di yebal yonent yàlla Muusa ak Haaruna ci Firawna booba borom bi xam na ne Firawna du gëm ndax fi ilmillah yàlla xamoon na ne Firawna laa yatadakkaru wala yaxsha waaw lu tax yàlla di yebal ñaari yonentam yu mag ci jëmm joo xam ne moom yàlla leer na ko ci xam-xamam ne jëmm ji du gëm te du nangu li ñu koy wax te itam warate du ko jariñ kon kay yàlla mënoon na ko yebal rek ne ko demal ci asiya mi nga xamante ni dana gëm demal ci jibarkat ya nga xamante ni daa daañu gëm demal demal ci muuminu ali firawna ma nga xamante ni dana gëm waaye yàlla daf ko yebal ca ka nga xamante ni sax du gëm mu ne ko waaral kooka comme alquran nag mooy firi boppam kon moo lay wan ne fa dhakkir in nafaati zikra mooy waaral ki waare di jariñ ak ki waare dul jariñ ñaan ñëpp war nga leen a waar su boobaa nag yow sa responsabilité dégagé wu na la ca des nag mbiru yàlla waaw boo gisee borom bi subhanahu wa taala wax yoon ci yàlla Muusa ak yoon ci yàlla Haarun ne leen su ngeen demee ci firawna fa quula lahu gis nga waxut kenn firawna la wax fa quula wax leen yéen ñaar ku ngeen di waxal lahu firawna mais nag xawlan la yenan ngeen wax ak moom wax ju nooy moo tax ab sëriñ day yaru ab sëriñ waxam day nooy kàddoom nooy fa qula lahu qawlan layyinan laallahu yatadakkaru aw yaxsha maa yor dëgg maay wax dëgg rek warul tax nag nga jàppe nit ñi tabarakallahu ne ay rab lanu yow yaay nit ba nu la neex nga waxeek ñoom déedéet firaw na ku ne xam na ne mo gëna bon kuy bon waye yàlla neena musa jox len ko xorma jox len ko respect fa qula lahu qawlan layyinan lutax ndax laallahu yatadhakkaru aw yakhsha te booba yàlla xamna ne la yatadhakkaru wala yakhsha wa wante nak li iqamati alhujja yàlla su fekkonte ne def ne musa bu ngeen deme wax wax len ak ñamay gëm kon bu ëllëgé fir'auna bu ko yàlla naré lak safara daf ne ko yàlla lutax nga may lak yàlla ne ko gëmuloo mu ne ko parce que maa jaa ani min bashirin wala nadir parce que yow bi nga yebalee Moussa dafa wax ak eh, asiyatu wax ak jibarkat ya waaye waxut ak man ma jaa ani min bashirin wala nadir yàlla nag ngir Firawna bañ a am lay ci kawam mu ne ko debal nga waxak ak moom ndax xam na ne du yàlla xam na ne yàlla am na xam na ne itam maa la yónni waaye rëy dana ko jàpp ba du nangu bëggu nguur akuk caay-caay dana ko jàpp ba du nangu su ko defee bu ëllëgee bu ñëwee nag du am nag lu mu lay waaw ndax rëy baaxul ndax rëy mooy bañ dëgg ak xeeb nit ñi waaw foo fekk ku rëy ñaara ngi ci moom bëggul dëgg bañ na ko am na ñoo xam ne boo leen waxee dëgg rek ñu mer bi ci des itam xeet nit ñi d'accord li nga wax dëgg la mais ki ma ko wax moom ma ko warta wax am na ñoo xam ne noonu la ñuy waaw xam nga waa Màkka yi nee woon nañ yonent bi ñun sax d'accord nañ ne mën nga nekkub yonent waaye lu tax yàlla yónniwul malaaka ci ñun xam nga kon mooy eh, loolu mooy rëy xam nañ ni li mu wax dëgg la xërëm yi ñu gëm dara baaxu ci diine ju ñu yor baaxul waaye dañ ne daal euh, Muhammad doomu Abdallah mi fi juddu bër ki démb di wax ak ñun loolu loolu lan mënta supporter waaw kon nag rëy bu nekkee ci yow doo nangu dëgg tabaarakallaahu te itam da xeeb ki lay wax dëgg te loolu itam gàllankoor la gàllankoor bu rëy la moo tax yonent bi sallallaahu alayhi wa wax ne képp koo xam ne lu toll ni atome mu ngi ci sa xol ci rëy doo dugg aljanna mhm. nga déggaat ci ne fa dhakkir in nafaati zikra in googu du in chartiya moo di ne borom bi subhaanahu wa taala bi muy wax yonente bi pour mu waar nit ñi daf na ko waaral ñépp waaral koy jëriñoo waaraate gi ak ku ko dul jëriñoo mooy boo demee ci suuratu yaasin borom bi subhaanahu wa نينا يرنتبي لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ندخ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون خمغ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون يالا نينا نيوم دونيو گم امنا شي ньо خامني شي نيوم دونيو گم واي وار لين رك كون فذكر ان نفعت الذكرى كون waaraate dafa am ñu ko moom ñi ko moom mooy ñan mooy ñi nga xamante ni dañoo gëm yàlla ñu waaraate bi bu ñëwee dana am fu mu dugg te mooy ci seen xol lay dugg ñu jëriñoo ko moo tax waaraate dafa am ñu ko moom way gëm ñee ko moom fa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin tabaarakallaahu waaye ànd ak lépp nag boo dee waaraate te comme yow doomu aadama nga xamuloo kiy ki koy jariñoo waareel rek ndax waaraate tumayizu naas mooy ràññetle nit mi ki nga xam ne soo waaree waar ba dana ko jëriñ tabaarakallaahu mooy aji gëm ji mu jël ci cëram jariñu ci bu baax yéeféer bi du ca jariñu wante itam dana tax ëllëg du na yàlla yebaloo woon ko wax man ndax yàlla am na ñoo xam ne xam na ne ñii duñu gëm mukk wa sawaun alayhim andartahum am lam tundirhum laa yun laa yuminuun waaw ndax innama tundiru man wa xashiya arrahmana bil gayb ñooñu nag ñoo di borom xam yi aha moo tax ñu ne waaraate ñaari wàll la am na waaraate goo xam ne moom la ñu tuddee at tazkiratul amma mooy waaraate goo xam ne ñépp a ko bokk waaw waaw moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon waaree nit ñi naan yaa ayuha nnaasu qulu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allah su ko defee tuflixu ey yéen nit ñi wax leen laa ilaha illa allah su ko defee ngeen texe kon waaraate googu ñëpp a ko bokk waaw ñëpp a ko bokk su ko defee nag soo dee wax ñépp ñëpp am ñu la gëm am ñu la gëmul yow sa yoon nekku ci ndax wa ma ala rasuli illa balaax moo tax yonent bi sallallahu daan na ko metti mu waar nit ñi ba noppi am ñu gëmul yàlla ne ko laallaka baaxe nafsaka ala aathaarihim in lam yuminu bi hada alxadisi asafa yàlla ne ko gannaaw si tey nag jaratul ngay am lu la metti ci boo waaraatee ba noppi ñu bañ a gëm li nga wax waaw loolu bum la metteeti nga waaraate ba pare ñu ne waxul dëgg tabarakallahu bum la metti waaw ndax mu ne moom borom bi subhaanahu wa taala maa ngi ci seen gannaaw te maay atte waaw yaay maay atte te doomu aadama bu ne tabaarakallaahu ah maa ngi ko sëpp di ko topp fan yi ko fi may dana ko fi dund ba mu jeex ñu dugal ko ci bàmmeel bu dekkee dajeek man ya ayyuhal insaanu انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه واو ندخ نيوم كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره مملني يونتبي صلى الله عليه وسلم برمبي نينكو فذكر ان نفعت الذكرى نغوار نيت القران te nag bu mu am xej ak seen waaral ñépp wante itam nag waaraate bi ñi lay déglu daañu séddalikoo ci ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi ñoom dañuy dugg ci at tazkiratul amma daañu la déglu waaye mën nañ laa bañ a gëm ñooñu nag boo dee wax ak ñoom واخلنا يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا allah tuflixu su nga waxal warati bobu nak dana am ñum la gennel moy ña ca nangoo wax la ilaha illa allah ngir taxé euh ñoñu ci deug deug ñom ñom mom warate gi waaw kon fa fa dhakkir fa inna dhikra tanfaul muminin muy beneen xeetu waaraate bu génn ci gannaaw waaraate bi nga xam ne ñépp a ko bokk kon wa ma ala rasuli illa albalaax albalaaxul mubin comme ab yonent moom dañ na ko waxal rek te dandu waxal te dandu ndax kay gëm xamuloo man maa xam kon nag bu mu la metti lool nga wax ba noppi ñu ne la li nga wax gëmuñu ko wala nga wax ba noppi ñu fen lool la bu mu la metti buñ la weddee bu mu la metti waxal ak ndax bëri na koo xam ne danga ko fekk ci jàkk sax foog ne mooy kii waaru nga wax ba noppi te du waaru bëri na koy romb ca baar ba muy naan nga ne su ma waxeek moom du dégg te fekk na boo waxeek moom mu dégg comme man yàlla nag maa xam ñépp ndax maa bind alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabir maa la digal nga wax ak ñépp ku la dégg baax na ku la weddi itam baax na sa yoon nekku ci yow daal waxal rek te yàlla tax ndax man yàlla maa seen gannaaw te kenn ku ci nekk maa yor dossier am dundam dara réeruma ci maa koy topp ci ba mu juddoo ba muy na muy duggee ci biir bàmmeel maa koy topp ba na muy dekkee maa koy topp ba àjjana la war a dugg wala safara la war a dugg kon nag doomu aadama bi ak nu mu mën a nekkee ci kaw suuf ba foog ne gisuma ko juum na yaa ayyuhal insaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan fa mu ey yow doomu aadama bi yaa ngi dund ci kaw suuf nag di tëñëx tëñëxi di dem wante nag jëmuloo fenn lu dul ci sa borom te da nga dajeeg moom kon defal très attention bàyyi xel bis boobu nga xam ne danga nga dajeek sa borom waaw yàlla di xamal yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko njub gii ngay woote dana am ñu la opposé dana am ñu la koy yàqal dana am ñuy dévier nit di leen ragal loo lislaam di ñaawal deru lislaam tabaarakallaahu di bonloo nit ñi borom bi ne fama lakum an tazkirati mu'ridin ka annahum xumurun mustanfaratun farrat min qaswara ci jàngin wala ka annahum xumurun mustanfiratun farrat min qaswara yàlla nee nit ñi ñu ngi daw seen njariñ te moo di diine ji mala jox ñu ngi mel ni ay mbaam yuy daw baatu gaynde ci àll te lii ma la jox du baatu gaynde guy leen di daq njëriñ la leen di jariñ waaye am na ñu leen koy ragal nag di nirale di nirale lislaam ak baatu gaynde ndax gaynde tuur deret leen ko xamee ak faddaate ñu foog ni lislaam tuur deret la rek ak faddaate fekk l'islam ëpp na foofu moo tax boo dee mustanfira mooy am na kuy dawloo nit ñi njub gi ba tax mënulaa déglu di la weddi waaw moo tax borom bi ne que annahum xumurun mustanfiratun farrat min qaswara da nga wax ba nopp tabaraka allahu am ñu jaar fa nga jaaroon wax yàq lépp loo waxoon weddi la weddi loola nit ñi nit ñi di la daw nag ni mbaam àll di dawee baatu gaynde ci àll mu mel ni li ma la sant daal mooy balligh ma unzila ilayka min rabbik jotalal li ma wàccee ci yow mu jóge ci sa borom te nga xamné ñetti kuréel lay déglu kuréel bi alladina amanu bika wa saddaquka wa hajaru ilayk kuréel bi ci dess moy alladina kafaru bika wa taraduk kuréelu ñettel bi moy alladina idha laquka qalu amanna wa idha xalaw qalu kafarna kuréel bu njëkk mi moy ñi la gëm sopp la dëggal la ànd ak yow gàddaay tabaarakallaahu bàyyi seeni réew ak seeni alal gedd seen lépp ànd ak yàlla topp la beneen kuréel bi ci des mooy ñi la weddi te moo di waa màkk ba tax ñoo dàq la génne la màkk ñetteelu kuréel bi mooy ñi nga xam ne seen intérêt dafa nekk ci yow te buñ la weddee duñ duñ ca mën a jot ñu làqatoo gëm la di la yàqal noonu la te xamoo leen te moo di ñii ñëpp nag mën nga leen waar boo dee waaraate daañu la déglu wante ka cay jariñoo li ngay wax benn kuréel bi rek la te mooy ñi la gëm ñooñu ñoo di ahlul xawfi moo tax borom bi ne waareel waareel nag waaye sa yadakkaru man yaxsha waaw ña ragal yàlla ñoom ñoo cay waaroo waaw kon mu mel ni ki ragal yalla moy kan moy ki xam parce que yalla mënoo ragal te xamulo waaw fa dhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin gannaaw ba nga waré ñepp ba noppi ñepp ñoñu moy ñetti kurel yima fi tuddu waré gi du jariñ ludul dul kuréel bu njëkk ba te mooy ñël a dëggal la kon fa dhakkir in nafaati dhikra wante nag fa dhakkir fa inna dhikra tanfau almuminin kon waare gi tabarakallahu ko def waayante nag dana am ñu ci dul jariñu waaye dana am ñu ci jariñu ñan ñoo ciy jariñu mooy way gëm ñi fa dakkir fa inna dikra tanfaul muminin moo tax léeg-léeg nga dégg ku ne la ñi gëm jaratuñoo waxal ñi jara waxal mooy ñi nga xamante ni gëmuñu yàlla d'accord euh, loolu dëgg la ndax waaraate moom ñépp a ko bokk wante nag ñi moom waaraate dëgg-dëgg muy seen xaq di seen cër mooy ñi gëm yàlla ñooñu ñoo moom waaraate ñoom la waare di jariñ tabaarakallaahu ndax e, nit bu xasee gëm yàlla seytaane daf koy daldi roofu ak njabootam seytaane yi warul ko wàllu gu ne pour rekk génnee ko ci lislaam yàq liimaanam yàq tawxiidam su ko defee nag ñooñu di leen fàttali yàlla di leen waa waaraate ga dafay nekk vaccin buy tax jàngoroy seytaane yooyu du leen mën a gaañ ba yàq seen pas gis ngeen fi jullit ñi ni seen jul jikko yi yàqoo ba nga naan boo demee ci réewu jullit ñi da fay fekk jullit mais doo fa fekk lislaam loolu jikko ju yàqoo koy waral nga ne boo demee ci tubaab yi da nga fa fekk lislaam mais doo fa gis jullit parce que nit jullit waroon a mel noonu la tubaab bi mel waaw tabaarakallaahu ba tax na kon lislaam jikko la jikko jooju nag تبارك الله لكو يدفر بمو باخ واريت تي لا بوك بودي وار نيت بكار بوم مونون دي ديف دنا خير رك ген نتي متخف الذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين متا نيت كي بون كو دي وار رك تاي تاي غومو نيكي بو ياغي رك شيطان يكو كو دون ديف لو داญو غداي بايوكو واو بو كو ديفه نك مو مونا موتش بتاخنا كون jullit bu ne tabaarakallaahu ngay boroom xam-xam ngay tabaarakallaahu jaamukatu yàlla bu mucc bul ëppale sa bopp mukkuñu waar la ndax waaraate moom ñëpp lay jëriñ tabaarakallaahu waaye kë ca gën a jëriñu mooy ki gëm yàlla rawatina ki am xam-xam mu mel ni nit dañ ko war di waar ci muy bàyyi xel kéemtaanu yàlla yu mag yi ndax borom bi nee na fa bi ay alaa'i rabbikuma kon léeg-léeg war nay xool jant bi gis ne kéemtaan bu mag la ak ni ko yàlla binde war nay xool weer wi gis ne kéemtaan bu mag la ak ni ko yàlla binde léeg-léeg war nay wër suuf di xool doj yi di xool garab yi di xool géej yeeg dex yi ak sewnde yi léeg-léeg teen di xool asamaan yeeg biddiw yi ndax borom bi nee na fa bi ay alaai rabbikuma tukadiban léeg-léeg nit ki war nañ koy waar ci muy bàyyi xel xéewalu yàlla yi wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha nga gis ne bët bila yàlla jox nga ciy gis ba mën a jéggi tali di moytu oto moytu waaw ak solo moytu lii kàmb la nga moytu ko te kenn wanu la ko sa bët ko wan waaw dem ba nar a dëgg jaan ji gis ne jaan la nga teggi sa tànk teggi gis ne bët ko wan xéewalu bët xéewalu gis aha tabaarakallaahu xéewalu dégg tabaarakallaahu dem bay jéggi bi dégg otoraay korne nga ne rett taxaw tabaarakallaahu xéewal yooyu doomu aadama bi dañ ko ci war di waar muy xam ne amu ko noonu kese kese rekk mu yomb noonu rekk déedéet ki ko ko jox dafa am lu tax mu jox ko ko am lu mu bëgg mu defal ko ko ci kaw suuf te mooy mu gëm ko di ko jaamu te bokk ci ñuy defar suuf ci rafetal jikkoom tabaarakallaahu waaye yor say bët di xoor te doo ci sant yàlla mukk di noyyi ci say bakkan doo ci sant yàlla mukk di dox ak say tànk te doo ci sant yàlla mukk waaw toog toog toog waaw toog ferenku laayu ah, xarmale mënu ko de xar mënu ko de sigg teen xool ca kaw mbaam xuux mënu ko de yow doomu aadama bi position bu rab di def yow doomu aadama mën nga ko loolu lépp dellu ci xéewalu yàlla yi waaw bu la neexee ngay raam nijaan waaw bu la neexee nga jaaxaan bu la neexee nga wetu waaw tabaarakallahu wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha waaw